Bougane moom euh, ku ñàkk sa soxna. Mhm. parce que lu diis la. bon xamante bi yàgg na avant sax yii yëpp. Mhm. moom sama sama xarit bu yàgg la donc vraiment ñu koy jaale euh, muum yi nga xam ne ban malheureusement et je regrette peut-être un peu musuma ko ji mu mhm. ko doon dégg rek. mais vraiment ci li ñu dégg si témoignage ak ñi ji nga xam ne sax dañuy bokk ak moom di liggéey euh, témoignage yu rafet et dama doon waxtaan ak benn nit il y a trois jours Pendo Guissé mhm. mu tudd turam te boobu waxaguñu sax que boobu décédé wul mhm. muy wax comment nan lay téyee ñu muy liggéeyal employé yi yan nan leen di yombalal nan leen di comprendre et tout ça donc xam naa ni euh, Bougane ñàkk na mais aussi euh, des médias ñàkk na di jaale aussi euh, Thione Seck famille Thione Seck Ah, seen yaay jaaga di jaale Mapenda di jaale ah, Assane Ndiaye di jaale ah, Wali Seck di jaale Alioune Seck ak ak toute la la famille Keba Seck vraiment di leen massawu parce que ku ndaw la mais ku ku amoon njëriñ ñu bokk nag wàllum liggéey et presque des fois sax même responsabilité yi média yombul donc euh, da ngay média ak musique ak yooyu yëpp tu travailles avec des gens qui sont exposés ñoo xam ne dañu nekk ci ci biti daal ñëpp di leen gis. donc euh, dañuy am des fois yenn personnalité yu difficile. Mhm. yoo xam ne yooyu yëpp da nga ko war a sóoraale nga war ko gérer donc soo soo nekkul nit bu mat nit bu dal dafay difficile vraiment nga nga kii ko donc ñu koy ñu koy jaale vraiment seede yu rafet la ñu am ci moom. Mhm. yal na ko yàlla yërëm ñuy waa vraiment ba njaboot gi aussi yàlla teg ci loxo euh, di vraiment di wax que ni tëj bu dëj bu metti la quoi. Mhm. ci biir loolu aussi xam nga des fois émission bi aussi il faut ñu profiter am na suñu benn mag boo xam ne mu ngi tudd Cheikh Mbacke kebe nekkoon directeur holding Kébé.